est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons le président de la République et moi-même le Premier ministre espagnol avant-hier, le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kàllaama wolof wax rek nii dama fay teew ci turu son excellence le président de la République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 président Bassirou Diomaye daf ma yebal moo wax leen nii bu soobee yàlla ci nguuram bu soobee yàlla lañ doon def benn dinañ ko def fukk te ñoo ngi koy def ci lu nit ñi xam ak lu ñu xamul son excellence monsieur l'ambassadeur am na lu mu ci xam ndax ñoo ngi taxaw ci wetam du lu ñuy wax fii nag di ci jàpp lañ ci mun a jàpp état du Sénégal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 ni mu bindoo diggante assemblée général bi ak conseil de sécurité bi ñaar yooyu bokkul conseil de sécurité nations unies mooy problème bi ndax fala ñu teg juróomi réew kese ñu tiim àdduna am sañ-sañ di décider pour àdduna bi yépp assemblée général mun na jël résolution léeg mu dem ci conseil de sécurité États-Unis leen d'accord ma ci ñu bloqué ko foofu foofu la problème bi nekk waaye taxaw taxawaay Nations Unies ci problème bi début ba léegi ak résolution yi ñu jël bu ñu ko appliqué woon peut-être tey du ñu wax Nations Unies nag amul doole bu mu appliqué moom day ab day jël résolution waaye état yi ñooy daje indi seen doole boole ko ne bu dee réew mii lañ ko sant def ko ñu dal ci kawam noonu la amee woon Kosovo noonu la amoon feneen ak feneen waaye yan état ñooy indi seen doole ci ci ci cas yu mel noonu état yooyu ñoo nekk ci gannaaw Israël.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 aay yi nag moo ñu njëkk ne da booloo leen bu ngeen booloo wut mu mun leen am dara moo ñu ko njëkk a wax dinañu toog di jooy di la waaye résultat boo moytul du gaaw ñëw de kon ñu ngi feddali taxawaayu nguuru senegal ci ndigalu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni lañ ci mun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 dinañ ci jàppale lépp loo xam ne ay daje la ndax nag ku ku ñemewut wax ku ñemewut jëf ci sa loxo ñeme wax te foofu la ñu toll yeggaguñu fu ñuy noppee donc fépp fu ñu woote ay ndaje ngir naqar lu xew fële tamit le président basiru Diomaye wax mooy dinañ ko autoriser te gouvernement bi dina fi ñëw teew ànd ak yéen ñu manifester kon ñu leen di gërëm di euh, gërëm organisateurs yi leen félicité asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa madame Touré soxna Tina Samb ñu ngi koy jaajëfal ndox yi ngeen xam ne moom ngeen gis ñu koy séddale fii moom moo ko participé tey ci jotaay bi monsieur Adama Mbuub bu ànd sàmm jikko yi tamit teew na fi donc mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci wuyu si bi nga xamante ne moom ngeen ñu wuyu si di wax ne combat bi jeexul ku ci nekk fa nga féete mën nga fa continuer li nga xamante ne moom mooy combat bi mën nañ nekk ci suñuy plateforme wane fa li nga xam ne mooy cofeel ak mbëggeel ak ndimbali bu ñuy dimbali suñuy mbokk jullit ya ca Palestine jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig di ba beneen yoon incha allah. kon ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla yal na yàlla dundal ñëpp ñëw yal na yàlla delloo ñëpp jëfandikoo woon ci jàmm waaxiru daawaana Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. Malaysia. mooy déclaration